Aïcha mu ngoog mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ngeen di woy di ci ànd ak sunu ay programme ma dalal Kajoor mu ngi ci plateau bi Kajoor ma ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha gloire à Dieu sant yàlla mi ñu may ñu fekkee ko di euh, nuyu ñi ñuy teewlu ak ñi nga xam ne ñoom laa nam àndal ci plateau bi. dalal ak jàmm kii naa itam mu ngi ci plateau bi kii naa nuyu nañ la. naka nga def. ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi. Dior Cissé leen ak jàmm alors Kajoor la revue dañ koy tàmbalee ak feebaru VIH di Sida. Euh, mu mel nii mu ngi wàññeeku fii ci Sénégal. loolee nag euh, seen euh, IGFM surtout groupe Futur Média bi moom moo koy xamle. Mhm. ginnaaw ndaje moo xam ne amoon na fële ca Saly ñi ki nga di professeur Cheikh Tidiane nduur moom moo yor kuréel giy xeex lépp lu ñeel mhm. wàllu sida ci Sénégal au niveau du ministère de la santé de l'action sociale moom moo daal di xamle boobu lépp xibaar nee na nag jóge nañu ci euh, juróomi junni nit yoo xam ne moom ñoom ñoom la ñoom ñoom la feebar bi duggoon euh, ren ñu tabbi ci euh, juróom-ñeenti téeméer muy de cinq mille à neuf mille cas d'infection loolu la xamle mu mel ni wàcc na bu baax waaye ci biir explication bi ma ngi fay xamle ne Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy dans le cadre général population bi mhm. euh, yi fi wàcc na bu baax a baax parce que mu ngi toll ci zéro virgule pour cent mais fu mu fu si ñi nga xam ne ne jàpp nañu ne si ñoom lay gën a bëri yenn saay muy euh, góor yoo xam ne dañuy sëy ak seen morom góor wala yooyu noonu en tout cas ñi ñi nekk les LGBT comme on dit mhm. ñoom nee nañu seen cas mu ngi toll ci vingt cinq pour cent ba léegi taxul mu yokk nee nañu wàññeeku na suñ sukkandikoo ci professeur euh, Serge Paul Paul Éolier mi bokkoon ci ndaje ma jiite nag réseau africain des praticiens luttant contre le VIH et les IST moom nag nee na Euh, daanaka infection yi mhm. mu ngi gën a bari ci adolescent yi rawatina jànq yi xale yu jigéen ñi euh, dans le cadre euh, général daal dinay euh, euh, souligner itam mhm. ne si population bi faaw rek ñu euh, fexe rek di euh, gën a euh, moytu. Mhm. waaye itam li nga xam ne moom mooy xeex bi ñoom ñu ngi koy continuer di def ba xam ba tax sax yëf yi daal nay stable. Mhm. la ñu bëgg nag ci mbébét li ñu am ci mbébét mooy fileeg ñu daal di dakkal li nga xam ne moom mooy Sida. Mhm. loole la Paul Serge daal di xamle ki nga xam ne nag moom mooy. Euh, chef de la division de lutte contre le sida et l'IST bi moo tudd léegi ca ministère de la santé moom nag la mu ne mooy mhm. faw nag nit ñi di dépister wu ndax soo ko teelee dépister ba ñu Euh, tàmbali traitement antirétroviral bi. Mhm. Euh, dafay tax ba dootoo mën a ci wàll kenn li nga xam ne moom mooy feebar sida bi. très bien bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci baa jaxate ak ki nga xamante ni moo di imaam Cheikh Tidiane Ndao mu mel ni le juin la ñuy xam euh, seen mbir. tout à fait date boobu moom la euh, tribunal grande instance bu Dakar dal di euh, jël ginnaaw ba mu. am ba mu attee euh, mbir mi ni ki euh, démb ca euh, flagrant délit ñoom ñaar ñooñi nag Bah Diakhaté ak Imam ndaw ñu di leen toppee diffusion de fausse nouvelle fësal xibaar bu teguwul ci dëgg naka noonu offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'État kenn koo xam ne mhm. dañu ko njiitu réew mi dafa am lu mu ko dénk ci ay ndombal tànkam nga tooñ ko loole lañu leen di toppee Euh, li nga xam ne dañu ko sakk woon jaarale ko ci seeni euh, avocat muy bàyyi nëgëndiku euh, dañu leen ko gantal ginnaaw ba ko procureur daal di gàntale moom it ñu jàpp rek ne ci jokkalante bi diggante procureur ak ñi nga xam ne ñoom ñooy layal ñaar ñooñu ñu teg loxo mhm. coow li nag mu ngi nekkoon ci ki nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom la ñu tooñ muy Ousmane Sonko ba xam ndax ki ñu tooñ dañ ko tooñ en tant que premier ministre wala dañ ko tooñ en tant que chef de parti waxtaan wi ci loole la euh, gënoon tënku mm-hmm. suñ sukkandikoo nag ci kenn si ñi doon layal euh, ñoom ñaar ñooñi di maître euh, Adama Fall nee na nag jubluwaay bi du lenn lu dul fexe rekk ba lii di àq ak yelleefu nit ngir mu mën a wax li xalaat ñu daal di koy euh, salfaañe mhm. moo waral ñu teg leen euh, loxo waaye euh, kii di Ousmane Sonko amul benn prérogative boo xam ne bu jugee ci chef de l'État la bu ñu ko jox Euh, moom nee na chef de l'état jox ko dara euh, procu euh, constitution moom moo ko jox. Mhm. li nga xam ne moom mooy ndomb tànk yooyu bu ñu sukkandikoo ci maître Moussa Thiam moom it mu bokk ci ñiy layal mhm. ba jaxate ak imam Ndaw. bu nu jógee ci loolu ñu wax ci les assises de la justice ki nga xamante ni moo di euh, le professeur Ismaïla Madior Fall dafa daal di décliner invitation bi nga xamante ni Diomaye def na ko. Dakaractu moom moo koy euh, xamle moom nag ci ab euh, bataaxal bu mu bind dafay nga gërëm kii di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye. ci mhm. invitation bu mu ko def ba noppi ne ko duma ci mën a teew ndax nag laata may jot boobu l'invitation aman amoon na yeneen engagement yu ma jëloon loolu mooy tee ma man ko daldi di euh, teewee mhm. moom nag euh, teewul mu rafetlu initiative bi nee na nag moom constitutionnaliste bi nee na euh, ngir rek mën a bokk itam ci euh, xalaat yi nga xam ne moom mooy jibee ci boobu lépp ndaje daf leen ni delloo euh, ci ab rapport boo xam ne ay assises la woon yu ñu tëggoon ca atum mag i Sall sàkk woon ko moom mu jamono jooju mu jiite woon wàllu yoon mu wax nag ne dina baax lool ñu gistu loolu nga xam ne moom la ñu dëxëñoon si boobu lépp rapport nga xam ne professeur Jacob njaay moom moo ko jiite woon. Euh, bu nu jógee ci loolu ba tey dañuy def sax ci assises yi mu mel ni Aïssata Tall Sall daal dina ci àddu waaw moom it euh, dafa dal di décliner tout simplement euh, li nga xam ne mooy invitation bi suñ sukkandikoo ci eMedia point sn moom nag remercier na itam kii di Bassirou Diomaye Faye ci invitation bi. waaye euh, nee na du ci euh, mën a euh, teew moom gaa ancienne garde des bi nga xam ne daanaka moom moo nekk jëwriñ wu mujj Macky Sall bi ñu dénkoon wàllu yoon la mu xamle nag mooy anam ba ñu tëggee yooyu la waxtaan mënoon nañ ko gën a approfondir ci xalaatam moom yamu ca ndax mu ngi doon àddu ci xarale bu yees bi di X maître Aïssata Tall Sall nee na nag moom elle est disponible pour lépp loo xam ne euh, autorités yi soxla nañ ko ci wàllu mhm. contribution mhm. ngir mu mën ko euh, apporter euh, ngir fexe rek ba améliorer li nga xam ne moom mooy Euh, wàllu euh, justice àdduna itam ci projet boo xam ne dañu ko amoon ngir tëgge li nga xam ne moom mooy justice bi ñu dugaloon ci lu toll ci maanaam ñu waroon ci dugal lu toll ci deux cent cinquante milliards bu ñu sukkandikoo ci ay euh, kàddoom. Mhm. crédit la woon bokk bu ñu waroon euh, tabaxee ay euh, tribunaux ay cours d'appel ak i prison ça n'a fait nee na nag comme état continuité la dina baax ñu sëgg ci boobu li projet xool nañ koy jëmale. dañ koy jeexalee ak AS Douane ñu daal leen di éliminer. voilà baal bi ginnaaw ba ñu xeexee fii ba qualifié dem mhm. baal ba waaye malheureusement euh, finalement seen seen maanaam parcours dafay daal di yem ci quart de finale yi ndax euh, sur le fil la leen euh, Petro Luanda euh, daane 66 mhm. à 64 Euh, mu nekk nag euh, ndorteel bu daal di euh, am solo boo xam ne AS Douane tàmbale na woon na ko match bi waaye benn moment ñu ñu daldi daal ndorteel bi sax au contraire dafa dafa jafe ndax ay raté dañu bëri lu ñu raté woon ci match bi ñu kii leen waaye ci biir match bi ñoom dem nañu ba dellu siwaat Jean-Jacques Boissy dugal ay points yu bëri. Mm-hmm. bi demee nag ba quatrième. Euh, quatrième euh, carton bi euh, ñoom ñu ngi mené woon pendant pourtant vingt points ba mu desee huit minutes waaye si lañu ñu commencé changer xar seen xar kanamu jeu kenn xamatul buy duggatul amatul défense bi bi war amatul yenn adresse yi euh, pa bi nag ak i ñu ñoom ca la ñu daal di euh, nërmeelu ci kanamu euh, Petro luwanda bi nga xam ne équipe la boo xam ne équipe Angola la moom moo daal di daal jël li nga xam ne moom mooy raw gàddu gi alkaali mi dugg mujjee dugg nee nañu la mu duggee trois minutes yi defu fa li li taxoon dugal ko Jean-Jacques Jacques Boissy mi doon dugal moom it loxo yi daal di mel ni loolu arrêté Arona kenn xameew ko donc mu nekk rek équipe Angola bi daal di ci profito mhm. dugal benn point d'écart boo xam ne moom moo éliminé Sénégal. incha allah merci beaucoup Kajoor ñu jaajëfal la bu baax a baax xibaar yi am na solo euh, permettez-moi ma dalal Pape Malick. Hmm. daal di ñëw rejoindre ñu ci plateau bi Pape Malick maa ngi lay nuyu dalal euh, jàmm. maa ngi lay euh, nuyuwaat aussi maa ngi nuyuwaat télé téléspectateurs yi ñuy seetaan depuis sept heures ba léegi. di nuyu hmm. Kajoor Cissé aussi ba fi fekk. di nuyu rakk yi nga xamante ne ñooy yëgandoo tout à l'heure hmm. di nuyu Soukayra aussi voilà. nga xam ne fii nga ko fekk. <laughs> nga fii laa naa la. dalal ak jàmm. dalal ak jàmm euh, Racky Kajoor VIH ndekete mu ngi wàññeeku Sénégal ah ça c'est une bonne nouvelle ah. bienvenue à ah, Racky euh, waaw c'est vrai Kajoor. Euh, c'est de vous donc euh, euh, pour revenir si loolu Aïcha moom. Mhm. et c'est une bonne chose parce que plus sensibilisation bi di jàll. plus mhm. parce que on a quand des avancées notoires mhm. matière euh, médicale du coup tey bu ñu yeggee fii nii c'est c'est c'est lu ñu mën a kii parce que depuis qu'on a commencé les traitements antirétroviraux yi ñu ngi def sensibilisation dafa doyul mais ba léegi euh, tey loolu moom moo permettre tey nga gis koo xam ne i vit avec le mu mën a dund normalement am ay doom ak lépp mm-hmm. parce que dès l'instant où euh, jël nga antirétroviral après dafay da ça réduit le sida à une simple maladie chronique ouais. te simplement maladie chronique ñëpp am nañ ko ñii ñu ngi dund ak diabète ñii ñu ngi dund ak euh, ay euh, asthme ñi ak yooyu noonu donc euh, le fait que nga nga ñu ñu médecine bi toll foofu ba nga xam ne feebar boo xam ne au début da nga ko doon ragal sax wax mm-hmm. tey mu nekk loo xam ne c'est une simple maladie boo xam ne mën nga ko am dund normal je pense que c'est une bonne chose et puis il faut continuer mhm. euh, aussi la sensibilisation surtout sans côté bi nga xam ne nee nañu foofu la ëppee mooy ci euh, la la la la communauté LGBT parce que ba léegi ñoom ils en sont à trente cinq pour cent euh, mhm. vingt cinq pour cent mhm. donc ba léegi am na descente sax parce que gënoon na lii mais ba léegi mën nañ ci continuer parce que je pense que la la population maintenant li des foofu laay daanelee mooy démystifier un peu cette maladie la parce que dañ ko jàppee woon comme la maladie honteuse les maladies ouais. honteuses et ouais. yoo xam ne soo ko soo amee sida catégoriquement sax nit ñi dañ lay jàppeeku ku bon parce que jàppoon nañu ne euh, transmission sexuelle rek moo am wala ñi mm-hmm. koy def parce que début bi au début mm-hmm. peut-être ci communauté boobu noonu la doon génnee mais tey nul n'est à l'abri en fait donc euh, ñu mu nekk maladie boo xam ne nañu jàpp xool nu ñu koy fii mais même dans le discours que les gens euh, à ceux qui vivent euh, de cette maladie là ouais. que ñu ñu ñu mm-hmm. qu'ils se retrouvent euh, si si espace public bi que ñu bañ a mm-hmm. beddeeku noppi parce que après mu mooy jur aussi mm-hmm. yenn transmission yi parce que boo boo xamee li nga yor aussi nga rus ko euh, doo doo mën a protéger ñeneen ñi la war soo xoolee sax ñi koy am souvent ils sont marginalisés dans la société c'est-à-dire boo ko amee doo bokkati même say bokk sax dañ lay daw donc yooyu noonu yëpp dafay am pap bon c'est une bonne chose hein, pour que euh, que euh, ak temps bi mu def yëpp du bu ko bu ñu ko euh, feeñalee ba léegi mhm. que léegi bon pour man victoire santé la scientifique yi ñoom liggéey nañ si am solo que léegi bu fekkee ne da nga boo kenn du xalaat de avancer tel cas soo xam soo sidaawee rek bo on te donne mois après boo nga dee euh, je pense que défi bi aujourd'hui loolu quoi défi moom mooy kañor lu mu wax euh, je pense que tout le monde est d'accord sur ça que aujourd'hui comme ça se soigne Euh, que défi bi moom mooy euh, moom mooy dindi benn stigmatisation bu nga xamante ne moom moo nekk si ginnaaw soo ko amee rek boo nit yi dañ lay nit yi dañ lay euh, daw parce que bon avant bu muy doog a génn amoon la beaucoup de pour man aussi tamit journalistes yi joué nañ si rôle bu mag le fait que ñu démystifier un peu le, sida parce que dañu doon wax avant au début bon nit ki su la jigee rek wala soo leen sa defee akolaat rek da am sida <laughs> bon il y a il y a il fut un temps mais ça ça, ça date de longtemps euh, mm-hmm. Jacob Zuma c'est procès ñu ko doon jiiñ affaire u viol affaire waaw affaire c'était c'était sur ça si benn xale bu jigéen mm-hmm. mu ne bu mu defee rapport sexuel après euh, xale bi dafa am sida quoi mu ne bu mu defee rapport sexuel après dafa dem mu sangu pour pour bi mu deñ quoi mm-hmm. en fait xam nga tout tout le monde s'est euh, ko amee noonu quoi voilà bu fekkee dafa sangu comme ça affaire bi pour wan ah, nga xamante ne alors que Afrique du Sud na si Afrique ne dëkk yu gën a cont je pense que sax euh, wax comme foofu noonu LGBT yi donc euh, kii ne comme Kajoor lu muy wax sànq am nañ du foofu noonu am nga droit Euh, comment ça s'appelle euh, comme Sénégal fii c'est interdit là-bas ah, c'est toléré donc peut-être loolu di rejoindre Kajoor rek lu mu wax mais défi bi aujourd'hui moom mooy essayer ba nga xamante ni koo xam ne amul na VIH c'est pas facile mm-hmm. c'est parce que li nga esprit dañ ko formaté de telle sorte que ba nga mm-hmm. xamante ni soo amee sida rek boo ni même su fekkee man par exemple je vais je vais dire waaye bon c'est bien sensibilisation koo xamante ni ñu euh, buñ marginaliser kenn mm-hmm. mais suñu xamoon ne yaa ngi nekk ak sida dañ Mm-hmm. même même ki nga xamante ni sax dafay dafay fiancé muy mel ne boo koo xam progressiste bu doon wax ne waaye man blanc la du ma jox sama doom de toute façon noir su ñëwee sama kër dama koy jox mu marié mm-hmm. un jour bu mu confronté doomam am <laughs> benn benn prétendant boo xamante ni noir la boo <laughs> mu ne du du ko may doomam donc c'est <laughs> c'est le cas il faut il faut une bonne sensibilisation sur ce coup-là Racky. d'accord euh, Aïcha juste revenir ci sensibilisation bi parce que je pense que moom moo des. Mhm. parce que côté euh, sanitaire côté trainement et mu ngi commencé am ay jéego yoo xamante ne euh, médecins yi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi koy càmbar bu baax pour mën a mhm. xool nu ñuy jéem a vaincre loolu boobu fekk jàngoro bi la mais aussi comme ñu wax rek ci sensibilisation da ngay gis en fait d'habitude boo koy dégg diw. dafa am wala diw njort nañu wala mu am ay euh, symptômes yu xaw a méngoog genre jàngoro boobu da ngay gis nit ñi di ko daw dëgg la c'est c'est vraiment dommage mhm. parce que nit ki mën na ko atteindre pas Euh, ci ci buy sëy par exemple mais aussi ci accouchement par exemple yaayam am ko accouchement et tout donc vu que médecine mu ngi progresser mu ngi indi ay ay ay remèdes ci loolu mhm. ba ba léegi sax yaay dootul wàlla ci doom ci ci loolu donc je je pense que mhm. jot na nag ñu gën a xoolaat ñuy sensibiliser nit ñi pour mën a euh, insérer ñooñu noonu ci société bi mhm. loolu am na solo kii na alors Aïcha fierté la vu que médecin yi commencé nañu indi li nga xam ne daf koy daal di euh, calmer ba keneen dootu ko am et puis ñi nga xam ne aussi euh, mosuñu daal di dem saytu seen bopp dem xool ndax am nañ jàngoro bi il est préférable aussi ngeen dem xool seen bopp parce que tey ñu bari dañu foog ni ngeen ko waxee rek ñu bari dañu foog moom euh, bu la nit jegee sax am nga ko. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ koy am di ko dundaale di ko souffriraare mais duñu dañu préfère noppi que wax ne carrément dañu am cette maladie alors que il faut nit bu ko amee aussi ngeen encouragé ko xam ne si askan gi la bokk mais pas ngeen daal di ko beddi mais ñi nga xam ne musuñu daal di dem saytu seen bopp am na ñoo xam ne xamuñu sax seen groupe sanguin am na ñu bari ñi nga xam ne ba ñuy def auto école la ñuy daal di xam ban groupe sanguin la ñu bokk donc c'est c'est bien aussi mm-hmm. de temps en temps ngeen daal di dem xool yi euh, docteur kër docteur xool yan genre maladie ngeen am pour ngeen mën ci teel a jug mm-hmm. loolu am na solo en tout cas pour tëj foofu mooy que avoir le sida c'est pas une honte. du du gàcce feebar la c'est une maladie comme. toutes les autres ñu ngi doon wax sensibilisation la plupart des pays nag soo xoolee am na ñoo xam ne par am États-Unis mhm. euh, je sais pas si vous connaissez y a un grand basketteur un basketteur légendaire qui s'appelle Magic Johnson. depuis les les années quatre vingt euh, moom il a il avait le sida depuis ba léegi euh, te loolu dafay source d'inspiration lay lay joxe par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ne. Mhm. bon ils l'ont et puis ñu xam ne boo tout est tout est tout tout est possible alors naka ngeen gisee euh, ki nga xamante ni moo di Ismaïla Madior fal ñu invité ko ci assise de la justice et que mu décliné invitation bi ka jox. moi je mën nañ ci boole waaye sax. Euh, Aïssata Tall Sall parce que ils ont vécu le euh, ils ont au niveau ministère de la justice. moi je m'y parce que y a eu tellement de contradictions mm. yoo xam ne ñoom ci lañ jógee ba seeni naataangoo sax ñoom. Euh, ñu xaw leen am luñ luñ leen lu fu ñu leen teg Ismaïla Madior a ngi nii pare wa bëgg a dellu université amul fu mu dugg loolu noonu yëpp ay ay ay taxawaay la yoo xam ne euh, am nga ko euh, te te te te te te. say <laughs> maa ngi jéggal sa sa départ sa faculté la. Ah, mi ngi noonu. Ah. <laughs> en tout cas moi je m'y attendais parce qu'ils vont se sentir à l'étroit c'est-à-dire tey bu ñu demoon ci assise boobu noonu. ñu ñuy wax loo xam ne yow da nga défendre li après nga défendre le contraire moi je peux comprendre que nga am position boo xam ne moom mooy sa position normal mais munoo ñoo défendre une chose après nga ñëw défendre son contraire man loolu laa mënul comprendre maintenant si tu as ça mhm. cette posture avec lépp loo représenté ñu war la woo ci ndaje moo xam ne ay xale yu ndaw ñoo fa war a nekk di la fa ruube ah, c'est préférable nga bañ a dem ils ont bien fait laa lay wax ni <laughs> booy Pastef yooyu ñoom ñoo ko doon xaar ci amphithéâtre yi mu wutali ifan bu demoon ci amphithéâtre yi ñoom la fay fekk ndax dina leen wax ñaari version yi fan la ko jël <laughs> même Aïssata Tall bon xam nga pour moom moom ba pare baal ma de 30 secondes rek moom demul ba pare muy mu mu mu ne muy muy muy. muy kii muy muy muy wax ay meilleur format ah, na du dem foofu wax meilleur format boobu ba pare ne aussi moom elle disponible euh, pour euh, pour que autorité bu ñu soxlaa looloo tax ñu ñu jox ko c'est pas pour rien c'est pas n'importe qui donc dañu war a am grandeur bi aussi. Mm-hmm. mu dem oui moom defu fi lu war a tax ba. ñuy kii parce que elle est elle est elle est avocate elle bokk na ci ay procès yu am solo yoo xam ne kii am elle a sa place dans dans dans la famille judiciaire donc bu mu rus na dem na dem kii loolu moom tam bokk na si ñu waxoon lii wax léeg mais na dem rek assumé comme on la connaît ah bon euh, pour man pour man euh, le fait que ñu mhm. ñu dég boo ñu jot a décliné boo yaa aussi boo l'ancien ministre de la justice Souad Cheikh Tidiane Sy boo bu wax ne boobu moom dafa def prétexte je sais pas ne moom nekkul nekkul Sénégal il est à l'étranger mhm. Euh, bon pour man c'est légitime parce que bon y avait un rapport yoo xamante ne mooy si dialogue 2017 bi lañ ko defoon après 2018 ce sont les mêmes magistrats presque ñoom ñoo ñoom ñoo fa nekk euh, bon Ismaël Madior Fall ci biir la nekkoon ak ñoom Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp mm, ils étaient là-bas. Mhm. Euh, mais boo xoolee rapport bi man je travaillais sur ça démb mais soo xoolee rapport bi bon yi ponk yi ñu tënk yi ñu tënkoon. Mhm. bon di nga gis ni parfois bu fii nii bu ñu fi jugee. boo dina difficile bu mu am lu wutee peut-être pour man aussi li ñuy wax justice pour man justice amul problème ah. pour man justice y' a pas de problème. Euh, li nga xamante ne mooy problème bi euh, moom mooy politiciens yi ah politiciens yi nga xamante ne moom moo su ñooñu lu am kii justice pour man foofu mooy problème bi mais suñu nee justice am na problème parce que pour man boo su fekkee am nga jafe boo demee tribunal aussi tamit gars yi dañuy jugé. ba léegi boo démb affaire ba jaxate loolu wax ne bon parce que dafa bokk fii wala dafa bokk tel camp loolu moo tax ñu jàpp ko et tout c'est un problème qu'il faut régler. Mm-hmm. mais pour man loolu mooy problème bi am na yeneen problème yoo xam ne pour man moo gën a cruciaux

2024. non je veux dire que loolu c'est la faute de Macky Sall. moom moo respecté loolu. pour man Bassirou Diomaye Faye mënoon nañoo créer euh, man je suis partie des gens yi nga xamante yu wax ne le dialogue là bon ça va parce que invité euh, format bi nga xamante tamit moom moo nekk invité yoo mhm. ay affaire magistrat pour man loolu aussi c'est pas décent du tout. xam nga donc pour man lu nga xamante moom moo gën a important moom mooy. Euh, def kii bi baax na dialogue bi mais format boo xam boo gënoon réduit ak magistrat yi je vois pas quelqu'un comme lan la mën a wax loo xamante ni magistrat yi xamuñu ko mm-hmm. donc pour man daal lu nga xam moo gën am solo moom mooy euh, mettre curseur bi ci lu nga xamante ne moom mooy entre politiciens yi ak lu nga xamante ni moom mooy justice parce que foofu noonu ça pose vraiment problème ku ñu jàpp ne waaye tel camp moom moo tax ñu jàpp ko te loolu il faut régler ça te duñu ñu jàpp Euh, ñoom ñoo fi nekkoon nekkatuñu fii mhm. assise de la justice am na. am nañu pour dem foofu wax seen xalaat. mais bu ñu toog rejeter invitation yi. gisuma benn raison bi tax gisuma gisuma rapport 2018 boo xam ne ñoom ñoo ko defar ba pare dugal ko si tiroir bi c'est même arrogant c'est euh, xaw ma yabaate la xaw ma mënoon nañoo dem aussi tamit ñu soulever loolu quoi c'est ça mais on l'avait dit tel point tel point tel point et puis man ce qui me bon ce qui m'a un peu euh, je sais pas étonné si affaire moom mooy sont les mêmes magistrats yu nga xam kañoo cité na ko muy waa Jacob Ndiago professeur Isaac Yankoba Ndiaye ah moo doon présider présider comité bi bi passé Euh, ñoom ay ñoom professeur Ndiaye Diouf ñoom ñëpp euh, presque ñu rédigé woon rapport boobu ñoom ñëpp ñuy foofu noonu donc bon voilà peut-être aussi tamit dañuy gën a ñaax président parce que Diomaye Faye boobu pour mu gën améliorer li xam moo di famille justice. en réew mi la defar ku ne am na ci wàll. Hmm? tout à fait Aïcha parce que je pense que euh, ki nga xamante ne mu di Aïssata Tall Sall ak Ismaïla hmm. Madior Fall hmm. dañoo nekk ay. nit ñoo xamante ne mënuñu leen seet ci justice. parce que mm. dañoo dañoo dem ba occuper poste yooyu noonu. Mm-hmm. ba pare nag dialogue bi ni ñu fàttali rek juste objectif général bi du leen lu dul permettre participants mu gën a mën a. Mm-hmm. examiner à profondeur euh, li nga xamante ne mu di faiblesse ak euh, li nga xamante ne moo gën a meilleur ci euh, wàllu ci ci justice. donc je pense que ñoom war nañu dem. wax ci parce que am na ay décisions yu ñu fi joloon mu indi yenn événements yi waaye itam am na yeneen décisions yu ñuy jëlaat ba. peut-être que am na ñenn ñu mu féewale wala ñeneen ñoo xamante ni disloqué na leen donc je pense que ñoom ñoo gën a war a mën a dem. Mm-hmm. Euh, pour mën a participer ci boobu boobu euh, mm-hmm. jotaay. Mm-hmm. parce que aussi quoi qu'on puisse dire euh, Aïssata Tall Sall même su fekkee du post bi mu occupé woon. kii la avocat la. et ñëpp nawloo nañ ko waxuma la nag mu dem nekk benn. autorité boo xamante ne ñëpp c'est ça donc je pense que je vois pas en fait le pourquoi à moins que mu nekk nag peut-être defante on peut le considérer ainsi ñoom bi ñu nekkee au bi ñu invité ñu lay dialogue ñëwuñu ñii bi ñu nekkee au pouvoir ñoom soi-disant opposants actuellement euh, demuñu donc genre le Sénégal je Sénégal en miniature le Sénégal en miniature man je me dis que lii nii tout ça c'est c'est c'est comme ça que maanaam defante gi ci justice bi da ko fay fekk da nga koy fekk ci ci politique bi da nga koy fekk ci biir kër yi donc faudrait revoir <laughs> aujourd'hui comment gérer vraiment su Sénégal na waar de defante bi moom daa war a dakk euh, Bah Diakhaté ak Imam Ndao démb ñu ngi ko doon waxtaanee Kajoor ñu woon ci kanamu juge ba. waaw mu mel ni le 3 la ñuy seen sort. effectivement ci biir waaye moo tax ñaar seen arrestation bëri parce que politique a ko lal tout politique moo ko lal te politique bu bu bu lalee dara euh, noonu lay demee benn de deux aussi euh, liñ ci yëkkati ci ay kaddu mhm. moom moo jéggi dayo parce que boo jëlee deru nit mhm. am famille am doom am ay millions de personnes yu ko topp mhm. nga ne ko góor jigéen la euh, dafay sëy ak góor loolu dafa diis comme kàddu euh, maintenant démb ci tribunal bi mhm. détails yi fa yi fa yi fa yi fa rusé ginnaaw bu ñu euh, sukkandikoo ci li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon parce que fii la ñu fekk ñun ci plateau bi ki ci mel ni Bah Diakhaté moom nee na ba muy wax waxu LGBT euh, et que euh, Ousmane Sonko dafay euh, def la promotion de LGBT moom jubluw ci woon wax ko lu metti mais dafa doon wax ne que moom dafa invité koo xam ne LGBT la loolu moo xam la maintenant yemu ci ndax wax na aussi Euh, ay terrain yoo xam ne nee na Ousmane Sonko daf ko jaay. Mhm, donc mhm. Euh, mu mu remettre en cause li nga xam ne moom mooy déclaration de patrimoine boo xam ne am na ko terrain jaay nu mu ko jaay jaaye nu mu ko jaay euh, jaayee jaarul yoon pour que juge bi nag ne ko mënuma sukkandiku moom indi na ay ay preuve nee na ay acte de vente. procureur bi ne mënuma sukkandiku pour xam ndax authentique na ou pas xam naa moo tax ñu dàq ko ba le 3 comme ça ñu xam ndax c'est authentique ou pas euh, kële moom pas bi moom délibéré bi lañu wax waaw moom laa wax je sais mais mais mais délibéré boobu noonu euh, le temps le temps que ñu ñu ñuy délibéré ils auront la possibilité de d'authentifier ou pas. les li nga xam ne moom mooy document. les preuves je suppose man defuma droit. non non non non non c'est-à-dire jugé nañu ba pare. bu ñu jugee ba pare que délibéré bi moom mooy c'est-à-dire ñoom. waroon délibéré bi temps boobu la pour lan lay. non non dañuy dem rek. c'est-à-dire mënuñu ko joxe tey parce que il y a des il y a d'autres xam nañu que. mais ils ont ok léegi concernant l'imam ndaw moom mm-hmm. euh, nee na. day dafa for rek ci weewu béy donc moom il a pas apporté de preuve waaw dafa for ci weewu béy nee na kii donc ñi nekkoon foofu ci biir saal bi nee nañ dafa doon bëgg sax rétracté wu mais nee na El Hadj Diouf <laughs> maître El avocat moo ne ko soo yox yoo xale dama lay bàyyi fii dem dootuma nekk sa avocat moo tax mu mu mu kiiwaat donc <laughs> loolu loolu loolu la ko wax moom tam mu jàppaat ci li mu wax yaakaar naa ne quoi qu'il en soit dès l'instant où y a politique déjà Bah moom yaakaar naa ne bu bu nekkoon si waxut jaay terrain yooyu rek ce serait tout à fait normal parce que munoo wootee jub di mhm. jaay terrain ci anam bu jaarul yoon mm-hmm. donc loolu boo ko defee nga nekk ci politique c'est normal sa adversaire politique jël ko teg ko ci table parce que Sonko c'est ce qu'il faisait avec les 94 milliards mais nag boo génnee ci cadre politique nga dem dugg ci vie privée nit ki mm. là il faut que tu apportes les preuves tout à fait en tout cas ñëw Jean-Luc Mélenchon fii ci réew mi créé na fi ay problème yu dul jeex mm. Jean-Luc dem na waaye Euh, mbir bi boo compliqué na et puis bon man du ma défendre boo wax naa ko ah, du ma défendre ñoo xamante ne tooñ boo di wax loo xamante ne ay commentaires yoo xam tegul mhm. xamante ne wóoru la ku nekk boo da nga war boo sàmmante ak luwaawu Sénégal yi bu fekkee da ngay dénoncer aussi nga dénoncer lu nga xamante ni jar na dénoncer fekkee intérêt général moo la tax a jug aussi tamit euh, voilà nga tënk ci loolu mhm. moo gën ngay dugg ci ay euh, considération am ay considération privée la bon comme que bon man que comme que bu fekkoon ay un an six mois la ñu la ñu requérir mhm. je pense que bon dañ leen dinañ leen def avertir quoi ah, doo def leen benn benn sursis deux mois sursis mhm. xamante ni peut-être bu ñu bu ñu defaatee leen ñu ñu avertir leen waaw je pense que loolu lay demee quoi ma am naa yaakaar que duñu leen mhm. tëj dañ leen dañ leen condamné mais mais pas mais pas enfermé euh, du coup ma xam ne beneen yoon suñ ko defee mais bon quand même euh, c'est c'est pas euh, ku déglu affaire bi ku ku koy défendre da nga ko déglu lu wax mais soo dégloo doo ànd si lu mu wax nit toog ci télé wala toog ci internet di wax loo xamante ni woo ko. nit toog di wax lu ko neex c'est-à-dire loolu moo war a jeex. non débat yooyu sax moom moo. moo warul nekk voilà débat débat terre la quoi. war a débat discuter lu nga xamante ni bon dina jëmal. Sénégal kanam wala dina amal nit yi njëriñ bon loolu moom ëpp solo. et pourtant il y a des à débattre li ñu war a wax ci réew mi dafa bari. Aïcha lii yëpp nag c'est la ñi fi nekkoon ñoom ñoo ko waral. xam nga tey ñoom ñoo promouvoir wala sax ñoom ñoo def promotion yenn yi. parce que munoo tey jii di photo wala di afficher koo xamante ni day toog ci réseaux sociaux di yàq sa adversaire lu ko neex di ko saaga. <laughs> Mhm. genre c'est comme si que tu dis euh, aux autres la même chose je peux pas comprendre tey Aïcha wax lu lu ñaaw ci yow nga jàpp tëj. parce que farul ci yow rek yu ñëw wax lu. lu ñaaw ci keneen. nga bàyyi ko di photo ma di promouvoir loolu. ce qui fait aujourd'hui ñoom bi ñu nekkee ci bi ñu nekkee opposant ils pensaient que ça allait passer. c'est li jigoon Ousmane Sonko peut-être à l'époque jigu leen ñoom ba jaxit ba jaxate li nekk ci ginnaawam mais. genre lu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko newul ci ginnaawam donc faudrait savoir aujourd'hui faire la part des choses Ousmane Sonko bi nekkoon opposant ak Ousmane Sonko bi nekk fii nii ça ce n'est pas la même chose mm-hmm. et aussi aussi revenir qu'aujourd'hui c'est pas parce que c'est un opposant ou bien que Ousmane Sonko tey mu ngi au pouvoir que tey lu ñaaw lu ne lu ñu gis rek dañ koy teg ci dexam mm-hmm. quel que soit Alpha c'est le premier ministre du Sénégal actuellement et aujourd'hui je suis ñuy débattre ci politique carrière nan lañuy ñuy Sénégal ci kanam parce que foofu la ñu war a toll mhm. mais pas revenir à que euh, dafa bokk ci mouvement bi wala dafa dafay dooleel mouvement bële amul benn sens su fekkee ki mu invité mhm. bien vrai que mu ngi ci benn lobby ñun loolu intéressé wuñu c'était ouverture la Sénégal dafa bokk ci àdduna bi donc par la force dafa war a rencontrer yenn personnes yi wala yenn personnalités yi bokk donc nañu jéem xool nu ñu orienté waat yenn yi recadré waat aussi sénégalais surtout nag ci digital bi. loolu am na solo digital bi. Hmm. digital bi yaakaar naa ne réew mi problème yi fi am yëpp ci digital bi lay jógee. mu ngi noonu merci beaucoup ñu jaajëfal leen bu baax a baax alors entre Pape kenn moo ñuy ah, moo mm. ñuy kii rek mm. wala ñu koy xëccoo. <laughs> Ah, <laughs> Kajoor à demain incha allah. bonne journée à tous merci beaucoup. bonne journée ba pare gars yi léegi léegi ñu ngi ci plateau bi ay <laughs>